mantu les sénégalais nous avons eu rek euh, l'affaire des gazelles oryx mu nekk euh, affaire bu doy Les gazelle oryx c'est ça. Les tax na sénégalais yi xam gazelle oryx et puis c'est des animaux magnifiques moi j'adore la nature j'adore les parcs j'adore les parcs je viens récemment du parc Nyokolokoba. Donc, euh, Sénégal dafa une ben politique de protection des parcs Tant yi rek dégg euh, parc de on ñuy wax que y a un problème d'alimentation des animaux Je am loo nous ne nag da nga jox ko xam xam nga sama man séeréer la Abdou Karim Sall mom tukuleur la xaw ma woon nag la buggee dibi xawma depuis kagn la tukuleur di lek dibi la mom suy dibi mënu jël si xari Aksi ak ci chèvre yi te bàyyi ñu suñu gazelle oryx yi waaye xàmmewul mom dal fu mu gis animal rek mu ne li mun na ko dibi <laughs> loolu c'était une pique sama xarit la nak ndaysan ciow top nako coow bu rëy topp na parce que suñu gazelle oryx yi nga xam ne Abdoulaye defe un petit nombre plus de 500 donc euh, ku ko yokkul waru ko wàññi ku ko waru ko xam Abdou Karim Sall ma doon Sara Center sama société tudd Sara Center léwatoo naa ay e ati at ak Abdou Karim ñu ngekk samay centaine de million sama baat sa kaw moom ak Nafi Ngom juuf ñoo ma doon gérer à la ñoom ñaar ñëpp ironie du sort kenn ki Ablaye ablaay wat nommé woon na ko ministre moom Macky Sall nommé ko ministre defe naa maa des si ngi trio bi ndeysaan Abdou Karim Sall moo tax may fay 6 millions tous les 10 mois à la Sénélec compteur prépayé xam nga léegi Sonatel Sénélec taxawutu si buntu kër yi di couper courant man de dama doon defanteeg ñoom si sama buntu compteur yi léegi da ngay ñëw installer sa. ce compte prépayé, gérer sa consommation. Wow. 20 000 francs pour Dakar, je consomme consommé par jour. C'est mon émetteur Moustonek Sacré que 3. J'ai fait 15 ans au phare des mamelles. Abdou Karim Sal, je vous dire. Vous regardez. Abdou Karim Sal, je vous dire que je suis à New York. Je suis à New York ak waa ARTP ndeysaan moo nekkoon ARTP ba ma demee ba xam ne ñii dañuy xaar ba bouger ndax mom defe naa Ndella moom Ndella gaynde la moom jarta wax ñu xaar ba ma génn dëkk bi ñu attaquer samay ne il faut que ma toxal émetteur ba fa nek parce que damay brouiller avion yi des yi dek yi atterrir te pourtant mënoon nga wañi puissance émetteur bi rek ndax fofu ma fa jitu fat Fardé Mamel TFM que ma fa <laughs> ça c'est une longue histoire après TFM RTS daf ma fa parce que man suis un précurseur là, man fa mais après je dafa un Abdou Karim Stal, suis aux États-Unis si la non euh, ça bruit les avions euh, donc il faut quitter Pourquoi? il faut ne 15 ans ndeysaan muy taw taw bu métti Je ne leen jël Je ko ngeen yóbbu ko Sacré-Cœur 3 bâtiment bi yegna donc mun nañ ko tek filon bi ci kaw lolo waral ñu def antenne fi Sacré-Cœur 3 ak a légui nak suñu gazelle oryx yi ñu bëggoo di ñu ñu dibi ah dibi bi de dina saf waaye nag du ma si yàq du ma si kii nag Macky Sall moo tamit tukulóor la de <laughs> may bay bu <laughs> est-ce que ñamu si tuuti sax <laughs> est-ce que ñamu si tuuti sax waaye dafa naa ñamu si parce que dafa nekkoon en quarantaine voilà donc ah ñu ngi ñëpp àddina bi yëpp nag ñu ngi seetaan Macky Sall ñu ñu ngi xaar réaction Macky Sall ndeysaan ndax nag <laughs> am na ñoo xam ne dañuy sauvegarder la nature et les animaux am na tontu bu rëy bi ñu leen war a tontu. plainte sa tuuti na parce que loolu nag wax dëgg yàlla nee naa la suñu tukkuleer yi rek la tukkuleer yi moom ah tukkuleer yi moom sama mbokk de dañoo dañoo dañoo dañoo xiif xiif ñoo xiif je vais surprendre beaucoup de personnes j'ai été victime de ça nit manqué na ma respect sama kër gi ma ko man ngay saga dégg nga wax ji envoyé ko vocal te xamna suma ko envoyer vocal am na ay risque mu mu mu ko ay nit mu déglu ko ay nit mais munu mon xalaat ne dina collaborer ak ay site internet ne la Madior insulte son personnel alors que c'est moi qui étais insulté man saaguma kenn man maa ne man ngay saaga ndey rek ñu ne Ndella Madior surtout rek xam nga moom moom moom gars yi moom euh, donc suy s'agit de Ndella Madior ma riirandoo lañ koy bëgg a def ndax dama bëri ay élèves animateurs yu bëri yu nekkoon si kër gi génn te seen waxtu génn jotu woon ñu mer ñooñu nag ñoo tas ci réseaux sociaux yi parfois ñoom ñooy déconné quoi di di riirandoo d'accord kon Cissé Lo su woowee Yakham mbay ak ndeysaan ba Ngom ñu sàggante seen biir loolu yoonu kenn newu si billaahi ku si dugg yaa si des ndax seen biir la ku mer saaga ànduma ak benn saaga mais loolu war woon génn su fekkoon Cissé Lô moo dugg si biir émission xam nga dugg na si biir émission wax lu nekk jóg Abdoulaye Diouf Sarr mais saagawu ko dégg nga wax ji saagawu ko mais lo xamné c'est privé dafa wara yam yem privé mais Sénégal gars yi loo wax nit da ngay téléphoné nit suñu lay enregistrer enregistrer modifier ko monter ko jaxase ko dougal fi dougal fee de ko car si réseaux sociaux yi titre ko nak titre bo xamné ko ko gis nga foog lu ne moo ne si biir parfois dara du fa ne dégg nga wax ji donc si c'est lo waxam bi waxu souf bi mom lañuy jallalé ci kaw